jogaatoon nañ pour de ben marche sous-préfet ba waxe ak mom jox nañu autorisation ba ñu joxe autorisation par rapport ak suñu mobilisation mu ngi nii ngeen di gis comme ñom ñom ñoo am service de renseignement dem nañ ba xam suñu mobilisation xajul ci marche bi parce que kenn ku ci nek kenn ku ci nekk lii naqari sa morom mo lay naqari ndax fi ay baykat ñoo fi nekk boo gisee amuñ problème ak ñi nga xam ñoy ñooy yi moy àll bobu kessé lañ dese waxon nañ ko fi duñ toga di ko répéter. soo ñuy bañ parce que nap kat ci lañ da na am ko wax ci tudu lolu man may coordinateur bi liñu ci 36 heures après biñu joxé autorisation bi préfet ci bopam wotma né ne marche leen waxon dañ koy ci lan la ko comme cour suprême arrêté

mooy suñu àq ak suñu yelleef tudd droit nangu nañ ko jël nañ ko lii ñuy bañ nag dañuy bugg di wéy di ko bañ dañuy wax commune bi ne ko maire bi ci jëmi boppam ne ko moom ak ay conseillers ak chef de village yi mu àndal nit du lekk yàpp bu ñorut ñun dañoo bokk ndey bokk baay bu leen tubaab bi jëral seen dignité bu leen tubaab bi jëral seen dignité ñoo bokk suñuy ngente ñoo bokk suñuy dëj ñoo bokk suñuy ceet tubaab bi tugal la jógee ñëw amul kenn ci ñun koo xam ne kii mun nga am France mètre carré am na xorom salin boo njaapat moo ko moom léegi xanaa dañoo bëgg a nangu réew mi ci ñun ñun fan lañ jëm ñun nag gëm nañ suñ justice ñun xam nañ li ci biir yëpp waaye nag tey ñun kenn gënu ñoo bëgg ki sal parce que moom lañ votel waaye Macky ci jëmi boppam bu fi buggee def naka sudu noonu dañuy bañ waxuma la préfet waxuma la gouverneur ñoon kenn yorut ñu yàlla rek la ñu ragal yàlla rek la ñu ragal